ñu yaraat yëglekaay yi alors euh, Chérif gis nañu ni xalifa ba Ababacar sàll moom ba mu commencé ba léegi di def ay jéego jëm ci présidentielle bi am na ñu bëri gis ni ay jafe-jafe yu koy gàllankoor lu ci mel ni caravane beeg yu ni mel et puis li mujj mooy Barthélémy Diaz mi ñu convoke mu war a dem ca cour suprême yàggatul dara aljuma la ñu jàpp ba tey ni loolee lépp ci liy gàllankoor wala li bëgg a gàllankooral candidature bu Khalifa Ababacar Sall la. waaw mën na am njeexital parce que mën ko considéré comme un fidèle lieutenant bu xalifa Sall am na lu mu ko mën a jaral jëriñ ci combat politique s'il s'agit de monter au front wala euh, di defanteeg ñi nga xamante ni il les comme des adversaires de Khalifa Sall parce que comme on dit dooy xamante ni il n'a pas sa langue dans poche et puis beneen bi mooy aussi sur le plan politique aussi jeune la boo xamante ni euh, day dem ci terrain bi di monter li nga xamante ni mooy au front donc bu fekkante ni ñi ngi ci euh, période bu cruciale jëm ci li nga xamante ni processus électoral bi waxu dépôt euh, dans deux ñu ne koy convoqué nga xamante ne moom mooy ci cour suprême ndem sax moom moo ko sàkkoon encore une fois jëm ci wàllu ñoom li ñu jàpp mooy même Khalifa Sall na ko bërki démb bi Moussa Taye doon publier benn livre boo ne justement c'était Khalifa Sall lan jagleloon boobu téere ne chaque fois bu ñu jëmee ci ay élection li ñu ne meek mooy dañuy suliwaat dossier Ndiaga Diouf bi et ñoom acharnement lañ ko jàppee jëm ci wàllu parce que yàgg nañoo sàkku ñu leeral ko boobu ba léegi leeraloon ko jëm ci wàllu Khalifa Sall dit que trompez-vous il n'est pas isolé mm-hmm. il l'a dit dans enquête mais boo xoolee coalition ba mu njëkkoon a bokk muy yewi askan wi amoon na fa jafe-jafe booy waaye mm-hmm. yewi considéré que ni dañ ko fa jëlee mm-hmm. donc dialogue bi moom moo taxoon bi ñëwee ci dialogue bi aussi ñoom jàppoon na ni ak régime Macky Sall bi xëy na. xaw na dina xaw war a tax même si moom il a dit que bu bëggoon a rejoindre ñi nga xamante moom mooy nguur gi def na ko bu yàgg mais bu ñëwee ci li nga xamante ni mooy dialogue bi ba sax seen groupe parlementaire à l'époque parce que bokkoon nañ ci Yewwi Askan Wi dem sax ñee 14 députés yi génnoon nañ. Mhm. mais gis nañ ni quand yu ci bëri ci ay initiative ci assemblée nationale dañ ci doon ànd ak benn boo ko yaakaar di ko voté bokkoon na ci nga xamante mooy modification déjà code électoral bi jëm ci yenn articles yi ak Karim Wade ngir ñu mën a bokkaat bokkoon na également ci mbiram constitution bi ak yu ni mel donc yooyu yëpp déggoo woon ci daal di ci sax contre-pied de la coalition Yewwi Askan Wi maintenant bu ñëwee ci contexte bi ku mel ni Barthélémy Dias déjà am jafe-jafe permettre Khalifa Sall mu ñëwaat Dakar parce que commencé woon na ay tournée sauf la partie nord où des amoon na jafe-jafe ak les forces de défense et de sécurité sur des arrêtés yoo xamante ni les préfets ci côté boobu génne woon nañ ko jëm ci wàll wi moom moo tax quand muy nekk coalition boo xamante ni quand même c'est une coalition qui est dans tous ses états en tout cas ce qu'on considérer nga xamante moom la ñuy ces derniers temps parce que Barthélémy comme ni moom inquiétude am mooy buñ ko condamné woon mu ñàkk poste dina xam benn au moins un député de moins sur les quatorze yi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Khalifa te ñoom boo xoolee même si ñi ngi def ay co citoyen mais bu ñu déposé conseil constitutionnel parrainage des élus la ñuy déposé foofu nag treize députés la laaj mmh. dañuy bañ bu baat au cas ñoom ñoo wax ba léegi ay mmh. pressé baat ki laa di lors sa dernière conférence de presse ne suñ ko écarté mu dese treize députés xëy na mmh. ak politique moom comme ni conséquences sur la candidature de Khalifa concernant mm. la l'étape euh, du parrainage donc mm. muy loo xamante ne c'est une guerre on est en politique na gars yi dañuy politique Barthélémy Dias sax des fois daf ko doon wax time fi doon amee réeroo ak waa Pastef fii politique moom gars yi ne se font pas de cadeau du de cœur aussi a pas c'est la conquête du pouvoir elle-même day loo xamante ni dafa ànd ak violence pas ci ay xeex wala nanga mais ci ay stratégie jóoju ñaar mel mm-hmm. parce que Macky Sall dafa am candidat son candidat s'appelle Amadou Ba te bu sañoon tamit gis ngeen ñoom APR communiqué bi nga xam ne génne nañ ko sax di annoncé ne jeudi bi ils vont investir Amadou Ba et cetera ngir mu daal di gagné conseil wax naa leen fi mm-hmm. capital très stratégique muy defar nag ay résultats comme on l'a vu sur le terrain gis nañ ci fin d'année bi sax gis ngeen ci wàllu déclaration ak yoo xamante ni ngi jëmal tey jii rek il annonce encore d'autres initiatives à Yoff et cetera. gars yi tamit sañoon. Mm. Euh, loolu ëllëg mën na jariñ Khalifa Sall parce que mën na nekk thème de campagne te ku ne xam ne ay galgal ak ci wàllu politique moom. Mm. yàgg na ci wàll mu yor benn budget boo xamante tamit comme a

nga moom moo ko yóbbu woon ci affaire caisse d'avance bi mu commencé woon sax ay tournée mais il a fallu mu interrompre tournée yi ci mm. Tambacounda ñëwaat parce que gars yi wooloon ko ci wàllu justice beeg ni mel ce qui veut dire que donc l'avenir aussi mu ngi réservé yeneen surprise yoo xamante mm. sur le plan politique et ñoom je pense qu'il se prépare à ça parce que moom it jaar-jaaram ci wàllu politique depuis le mm. parti il s'attend à tout Alaaji biir ba léegi naam sax euh, xañ na ñoom ci seen bopp ñu ngi soor li war a mën a dal ci seen kaw. waaw mi ngi sóor li war a dal ci kawam xam nga naata. Hmm. Euh, justice dafa am politique am mais politique bu ñu demee ba justice di am incidence ci carrière politique gu nit dafay xaw a dafay xaw a doy waar dafay xaw a tey xel parce que li nga xam ne tey moom moo indi coow li yëpp. mooy le dossier dañ ko programmé ci période bu nga xamante ni ñi ngi dëgmal ay élection forcément nit ñi dañuy xalaat ni bu ñu yëkkatee dossier bu nga xam ni war na mën na am ay incidence ci euh, campagne électorale wala ci candidature kenn xëy na dañuy yaakaar ni foofu am na lu ci lu lu ci dugg parce bu fekkee ni tey euh, Bart ñu fàttali ni euh, vendredi 22 lay dem en audience spéciale dañ ko njëkkoon condamné première chambre ñu condamné ko à deux ans dont six mois ferme ak amande bu nga xam ne teg nañ ko ci kawam hmm. moom ci boppam sax nee na du ma dem mais duma dem ji am na ci sañ-sañ bu ko neexee bañ a dem mais ce qui est sûr mooy ay conseil am hmm. euh, dinañu dem teewal ko parce que maître Borso Pouy mi ngi ci maître Mbaye Sène maître euh, Demba Ciré Bathily maître Ciré euh, Clédor Ly ak maître Khoureychi Ba donc dinañ dem défendre seen dossier mais condamnation bi li ci mun a am conséquence mooy ci en cas de condamnation définitive bu fekkee ni assemblée nationale la da ngay perte li nga xam ne moom mooy sa sa mandat député. bu fekkee ministre de la justice bind na. bind na voilà te loolu article 61 alinéa 7 de la constitution moom moo ko wax article 51 alinéa 6 du règlement intérieur. de de de de de l'assemblée nationale ñëw dëggal ko donc bu fekkee ni condamnation définitive am na euh, procédure yi ñu respecté ko mën na am mu perte. mandat wu député te bu pertee mandat wu député dafay am conséquence ci li nga xam ne moom mooy parrainage des élus parce que bu boobaa xëy na xalifa mën na bañ matal li nga xam ne mooy 14 yi ñuy laaj parce que ça va être 14 moins 1 ça va maintenant beneen bi nga xam ne moom moo ci des mooy pour son mandat de maire. Mm. son mandat de maire ñu bari ñi ngi wax ne le mandat de maire n'est pas menacé. am na ñeneen ñuy wax le contraire mais en tout état de cause moi je trouve que ce serait vraiment dommage mmh. qu'on arrive à ça parce que tey quoi qu'on puisse dire Barthélémy Diaz est en train de faire un travail remarquable à la tête de la mairie de Dakar moo xam ci biir dëkk bi la boo fi doxee di nga sentir loolu mais ci askan bi di nga sentir ni mi ngi def lu am solo pour les indigents mi ngi def lu am solo pour les bourses des étudiants hmm. euh, li ñu prévoiroon c'était que yërmande parents d'élèves yi ñu bëgg a fayal seen ay doom euh, def ci am solo mi ngi ci def liggéey bu am solo évacuation sanitaire Barthélemy mi ngi ciy def lu am solo <coughs> loolu yëpp je pense que bu fekkee ni dem nañu bay xalaat euh, jële ko ci bopp maire bi mën na indi gàllankoor bu métti métti ci li nga xam ne moom la doon liggéey hmm. et je pense que il y a euh, un journal qui l'a dit tout je mu wax ne euh, pour son mandat de de de, de maire les articles 135 et 140 du CCG CGT. Euh, épargne nañ ko. ba mën na ko bañ a perdre moo tax moom mu ne il ne bougera pas. de la mairie. Hmm. mais wait and see, on verra ce que ça va servir, hmm. ce que ça va donner. Hmm. mais en tout état de cause moi je suis foncièrement contre. ñuy yëngati yëngal ay dossiers yu nga xam ne dafa concerner nit ci veyu élection. c'est c'est dafa rafetul. c'est inélégant c'est inélégant mënoon nañ juger bu yàgg mu jeex parce que ça fait douze ans qu'on traîne ce truc là comme un épée de Damoclès au de la tête de Barth on pouvait juger ça depuis très longtemps mais bu ñu xaaree ba élection juppal ñu yëngal benn dossier ni Chérif Kaay wuyu parce que Chérif candidat la dafay mel ni que euh, dafa am ñu nekk ci ginnaaw mm. di yëngal pour euh, baare ñenn ñi ce qui serait dommage on doit aller vers des élections communication bëri na ci ay dossiers yoo xamante ni dañ ko war a yëngal loolu euh, du euh, Sénégal euh, ak image bi nga xam ne donc moom la ñu bëgg a wane ci réew mi ci biti réew donc je suis pas d'accord sànq ñu ngi wax ne que xarif euh, Barthélémy Diaz ci école yeeg euh, wàllu bourse yi nga xam ne mi ngi koy def mais boo duggee si cimetière yi rek di nga xam ne que ne Barthélémy Diaz mi ngi liggéey bu a baax euh, pavé ak lumière bi nga xam ne da koy def ci këru diine yi wala bokk ci cimetière yi moo xam bu catholique bi ak bu chrétien ak bu chrétien bi donc loolu noonu si à saluer et je pense que kenn koo xamante nii jug na ngir xeexal réew mi ngir daal di coppi li nga xam ne moom moo di xaar kanam yenn ci ay ruqu xaar yoo xamante ni daanaka amaana naata tey boo fa duggaan xel day am ci lu bëri ci lu muy dem kooku noonu danga nga koy encouragé afin que mu mën a wéyal li nga xam ne moom moo di liggéeyam lu soxal euh, euh, li ko desee ci mairie beeg yooyu noonu man je pense que lépp lu ñeel mbirum yoon ak Ndiaga juuf ak. leneen lu mu xeetoo warul war a mën a déstabiliser dara ci li nga xam ne moom lay woyal ci ci ci ci jamono yi heureusement article yi nga xam ne moom la tënk na ko lu soxal nag kaa Khalifa Ababacar Sall ku nekk xam ne hmm. Khalifa xam-xam bi nga xam ne am na ko ci wàllu politique jaar-jaar bi nga xam ne également am na ko ci wàllu politique tekk-tekkaaral boo xamante ni am na ko pour man am na leneen ci loo xamante ni euh, mi ngi koy euh, mi ngi koy xalaat mi ngi dérouler campagne am normalement donc foog naa ne euh, élection yi ñu jëm hmm. lu ñu wax élection transparente maanaam inclusif ak yeneen yu ñu xeetoo war nañ bàyyi Sénégalais yëpp bokk ñëpp dugg ci jongante bi ku jël raw gàddu gi jiite réew ñu xam ne noonu la Ibou voilà soxna naata xam nga souvent dañuy wax euh, fair play hmm. ci dans le football. milieu du sport, en général football surtout mais je pense que ah, il un très grand penseur français bu théorisé théorisé donc euh, il mhm. s'agit de Charles Montalembert bu doon addu ci li nga xamante ne moom mooy charte yi nga xam ne moo lal wala politique surtout quand on de la démocratie muy loo xamante ne mënees nañ ko xalaat fi nga xamante ne mooy fii ci Sénégal ci jamono yi ñuy dund nii mhm. parce que moom dafa gisoon ne su fekkente ne da nga ne ci réew di xëccoog ak ay opposants li nga xamante ne mooy nguur gi dafa am ay régle de jeu yoo xamante ne war nañu def kamtalay kàttan ba duñ ci laal dara su ko defee ñëpp toll ci li nga xamante ne mooy seen même longueur d'onde bu ñuy uti li nga xamante ne mooy pouvoir bi jamais attaqué un opposant wala koo xamante ne dañu jàpp ne dafa xaw a néew doole surtout ci wàllu jumtuwaay ak wàllu peut-être notoriété donc yooyu boo gisoon mu ciy wax c'est pour éviter yenn cas de figure yi ñu mën a gis dans certains pays donc li ñu gis fii Sénégal c'est vrai que c'est un procès qui a vraiment euh, assez mm. et chaque fois ce qui est malheureux bu ñu koy évoquer dafay tombe benn échéance boo xamante ne euh, dafa benn benn. Euh, dañuy waaj élection. voilà waaj élection wu li ni mel donc dafay xaw a teexal comme ni ko Malick waxee. Mm-hmm. donc le plus important tey mooy nañ ci taxaw su fekkente ne yoon war na def liggéeyam mu def ko tey vraiment ñu bàyyi ku ci nekk doxal sa bopp te ñu bàyyi askan wi tànn quoi. Hmm. je pense que c'est pas la justice du li nga xamante ne moom lañ war a mën a sukkandiku. Euh, souvent dañuy wax la liberté donc euh, de cette justice. Hmm. et je pense qu'il est temps maintenant qu'on passe à autre chose et puis ku ci nañu bàyyi la ak sa chance. Euh, vraiment ñu amal élection yi ci jàmm ak salaam c'est important. Hmm. askan bi tànn ku leen Barth n'est pas, candidat, mais il a un candidat. Et il a vraiment une place à jouer au sein de cette coalition wala sax de son parti. merci et yaakaar naa euh, bàyyi ko mu tamit loo am solo la. <laughs> merci beaucoup Ibou alors dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.